saalihu géy sëtub sëriñ mor asta géy dëkkee badar moo del siwaat ngir fent way boo leen ma digloo tey ma way jaar jaari cheikhul xadim ki man ci géej géej yi danaa ko tënk tey ëllëg ma tinki ko way ko ba ñépp xam ni góor dabagu ko bam feeñagul àdduna booba dunyaa lëndëm na ngir réer gi fi woon ak mooy yaa ñii topp wuuri ñee di mooy di caaxaan nuuri ci mbon ba fàtte yàlla quraan Gonyak ñaak jigéen ña maase topp ay sabar ak géewi làmb ñii di njabar mag ñépp réer duñ sollu ay carte di tuxaka naanaka yendoo carte seytaane tënk réew mi ñépp topp ko la yàlla yoonaloon ñu réer ba teggi ko waa kaw ñanaa bur yàlla noo ngi lay ñaan nga yónni mbër mu wàcc gindi soodaan yónneen ni yàlla la taxoon nga ma ko bu nga ahmad bamba yon ko ngir moom rekk attan xibaar ba jib siiw lool ci gaay asamaan ngir tànn nañ kiy gindi aaxiru zaman wàllu ya daan fanaani pey diiwaan ñoomit ñu yëg ko mbir ma def leen kii man Cheikh Omar Fuuti yu tal wàlliw ba ba mu ko yégee la jóg di wër bërëb ba yàllaa ko noon kooka de réewum bàkkata lay feeñe moo tax mu doxat ba màkkata buur ni ko déet bàkkata gee ca soowu bokkeewul ak gi penku nee fa coowu boobu la jóge màkka ñëw mbàkke bawal ca kër sëriñ Mahmadu Sekk nag la dal buur ko dëkk bii nga ne mi war a gindi réew mii cheikhu omar bàyyi fa ab Kane? wax leen folol wax gënu koo kiimaane leer ga la gis cheikh omar fuuti yu wër ko ba mbàkke raw na kuy yu cheikh bamba feeñ bayam tuddee ko sëriñam bu daa ko janggal bamba sàll di turam sëriñ omar anta di bayam Mam jaara mooy ndeyam di sët ci maaram ba dal lañ ko jox siñ tafsir mbàkke ndumbe foofu la nekk ab diir ba fa jógee la dem ci siñ busoobe aalim la woon réew mi padaa ko joobe ba mu jógee ca siñ busoobe nag la dem ca way ngir fa xam-xamam te baba bayam ma nga woon fa saalum mooy ya dajak ay noonam ca foofa sax la ndey ja wàccee ab liggéey muy dem gu tiis waaree mu ñépp doon ko jooy fanweeri at ak ñett rek la dund teewul mujj fi jëf ay Cheikh Bamba bam mu amee fukk ak lu topp ci at la ñàkk ndey ju ñépp sopp ba ndey ja làqoo ba mu la jël ko def ko waayam keroog ba baayam di tuxal njaboot ga wuti kajoor Bamba nga woon ca wet ga xaadi bu mag la di àtteel Lat Joor wax nañu sax loolu ko yóbbu woon waaye masul bëgg di dëkk ak ay buur moo tax mu randu sanc ak mbàkke kajoor mbàkke kajoor googa la Seex ba ne woon di jàngalee kay jàng sàkkuwul leneen léeg-léeg mu gis xoos yi ma jaxate kala gaaral ko ay way ngir mu xool ndax noona la léeg mu dem ca sunu maam borom saam nekk fa ab diir di fa gëstu lislaam mboolem fu noon yëpp la peg ci ak ndawam seexul xaddim kenn mu la natt xam-xamam mbàkke kajoor ba mu fa neyee di jàngale mujj na ñëpp dem ca moom di yeggale mu teel a wuutu bàyyi bolol ca daara ja ñëpp safoo ko wekkalool ngir ko jë ca yooya at la baay ba daal di faatu ñu rob ko déqale mu far ko wuutu moo doonu daara ja yoraale kër ga taxawul lépp daal di wuuf njaboot ga ca yooya fan la mag ñi ñoom Mbàkke Kajoor naa ko doona bëgg nga dem nekk ca buur Lat Joor ku baax la boo demee di àtte dana la yor yiir la nga far fa féete bàmba ni leen ci yàlla rek laay féete te du ma jug mukk di dem fu mu wute ñan naa ko lii xéewal la bul ko gàntu am ci ñu naa baleen ko kii day fontu nit ñëpp dëddu ko mu jublu yàlla wéeru ca moom ànd ak jomam as gor la ba baay balaa xoon ak ba at ma siwaat ca la ko yonneen feeñu ràng koy garat booba la naa ko na nga yar sa donga yi ci yitte buñ yem rek ci jàng téere yi Seex Bàmba xëy ni leen ko jàng kepp indi ci man wutil faneen foo jàpp ku bëgg a dox ci lii ma jublu nag ñëwal jokk ci man doy loo ma topp saa ndigal ña ëpp dem ñu ne watoog Aadama Géey moo njëkk jébbalu keroog am na lu rëy woote na am at weesuwul fan weer fanweeri nit ba Ibra Faal ñëwee la ñeen fukk yamat ba mu jugee Mbàkke Kajoor kër baayam Mbàkke Bawol la wuti dëkku maamam booba murit ya tar na lool ci ñoom ngir daanañu leen dóor ak nangu seeni kër tàqale leen ak seen alal ak seeni doom nit ñëpp xeeb leen jaxasoo ak ñoom daanañu wax jeeg lu mu bon bon jur murit mbaab séer bi mbaa ab na ma dal amuñ mérite nit ñëpp xeeb leen defatuñ leen nawle ñu ni ci num te boobu néew nañ doole ca yooya at la Bàmba gàddaay kërimaam tuxu ca wet ga sañc fak Daaru Salaam keroog bami muy bawo boo waa mbàkke ñoom ñëpp bañ naa ki fa ab diir door a sanci tuuba bàyyi rakkam seex kër ga ak tool ba tuuba la wàccee ñene woon ca daaraam def leeni seex ku nekk sanci daaroom sax fa dir mbooloo ma ak raj raj ja mu gàddaay ngeen ñoŋal diineem ja sëñ buuso la fa dem bari dekkilaat bërëb dir lafa la fa am waaree ma ñëpp topp ko looloo taxoon bur yaag sëriñ sa fiire ko ñoo dem ko ak ya, leen bu ngeen jugul mu nangu ya mbooloo la yor nguur la fi bëgg a taxawal bis dana xëy songu si leen ba leen ko xel tubaab yi xëy jox bàmba ab bataaxal ni ko ñëwal wuy suñu doonu jaaxal bàmba ni leen aw ndigal fa saa borom kon mënumaa ñëw du ma déglu saa morom ruuxalekat ya dellu naa leen lu ñu waxoon du wuy si mukk am na fit faalewu leen ruuxalekat bu mag ba xam nañu turam waaye jërul wax nañ ci sédd ay sëtam tubaab yi yónnee nañ fa ay bataaxal yu mu lool ñëwul mu far leen jaaxal Cheikh Bamba xëy jox ab bataaxal Cerno ni ko demal ndar jox ko seen gouverneur maam Cerno dem ndar waaye daataa muy ñëw fekk na sëñ ba jekk waaj moom ba taxaw ba mu ñëwee bay wax la Bamba naa ko maam Cerno noppi lépp dégg naa ko am naa ndigal ci yàlla ak rasuulu toog leen ba ma dem wuji ñi ñëpp yu móolu tàggu njabootam gépp jël loxoom ya teg ko ci faloog Moustapha doomam ya naa dénk naa leen yàlla ak rasuulu ak Cerno Ibra Faati ma wóolu nit ña di jooy mu gëdd war fasam wa ñépp taxaw mu génn yoon wa di dem noon ya di ñëw fa jeewal lañu daje armi bu rëy lañ teewal jaar nañu kokki luga lañ yéegee saxaar ngir wuti ndar bis la bu tiis doyoon na waar jël nañ ko te jël ku del ko wax gësu jil ñoo songu sun maam cheikh omar fuuti yu taal ahmadou cheikhu ñoo ko war rey ko ca teel mabba jëxoog mouhamadou daraame ñoo leen rayoon rayoon bu ñaaw te yéeme bul fàtte foo de kaba ngir tubaab ba ñoo ko rayoon xëy songu bamba jël nañ ko yóbbu ndar mu dëdd mbiram sax na fa ay fan waxagul ci ay mbiram bis bañ ko ne kaay wu si tey biroom ndar keroog ba muy dem ahlu badrin ñoo ko dar daa dugg rek dummóoyu jublu màkka sànni deram julli fa ñaari rakka tubaab ya naa comment sëriñ ba naa leen yàllaa ma bind yéen tam mu bind leen mu wax ma def yéen wax na leen ngeen lànk noppali leen xam ne du ngeen ma sànk tubaab ya naa ko kaay signé mu jël bigam signé fa allahu ahad ñëpp wedam ca la ñu mer génn ko yóbbu ko Dakar waajal fa néeg bu tiis tatar mu koy xaar ba mu ko jubee lañ summi dàll yam soloon laaxati kaalaam nangu téere yam yoroon bu max ko tëj ko ba ko faak tàngoor wa lëndam nga xet ga daam di mu mettit wa te suuf ga kat def nañ fara buy jame mu di ko jam wallahi bamba moo me, sax na fa ñaari fan sëggul si géetul ngir néeg bu xat gisul xarit mbab wéttal luy xeeti lor ak xeeti tiis daj na ko ndar daj ko dakar te fam jëmaat mooy gën tar tooñ nañu Yusimbi bi jël ko génne réewam yóbbu gabam bëgg ñu fàtteem riiram ba mu demee ñang ko dalal ci àll bopp kenn mënu laa wax la fa am ci rab te rab ya kat yor nañ dangar joo xam ni kuñ màtt rek nga faatu gaay sànni fa lañ ko génnee montagne sent sonal ko lool te teew ko di sant foofa ca montagne sent lañ ko yeew bis sox ay fital ahlu badar lañ mujj gis noonu yaa nga tiit daw naa ko bàmba ndekete am na ñu lay garde di boof ci sa côté gabon ci mbedd la dëkkoon amul néeg mbaar la fa def buy bind foofa lay toog ba am na bis muy taw te moom ca mbedd ya mu dem ca kër ya ñaan fanaan ngir téere ya kër gam duggoon booba ci aw waañ lañ ko fat ka ko fatoon woo nañ ko tëj ko ci am at sax na fa ñaar at fa lañ ko tuxale yóbbu ko maa yomba ci kaw yu tappale juróomi at yu mat la am maa yomba taroon na lool lu ne la daj ca dun ba tefes ga lañ ko bàyyi woon duggul ci kër joxuñ ko néeg lu ne la daj ci aw naqar mettit ya ak tartar ya teewul lam fa way booba ba tey gisuñ ko bind lu nu doy lam fa jëfal yàlla ak rasulullaahi ak lam fa daj kenn du ko daj billaahi ba muy liggéey booba sëriñ suñuy coow lu leen musal ñoog seen jaboot ga la ñu siiw ba muy liggéey booba sëriñ suñuy coow ñoo ngi ci réew mi dog lu ak sipp soow tey ji la neex ku nekk def ko nawle ba muy liggéey ñoom ñëpp toog di xoole da leen raw man leen te moo leen gën a gëm lee tax mu am cër boobu ci ñoom kenn du ko am ba mu amee juróomi at maa yomba lisaanu xaal mag naa ko seexu bàmba am nga ngërëm ci yàlla ak rasuulu dellul sa réew fenk nga dootoo suulu booba la wàcc tubaab yi def ko ci gaal tàbbal ko géej muy féey ba si Sénégal Dakar la wàcc réew mi ñëpp maare murit yi beeg ba mel na ñuy xawaare jaar na ci ay bërëb ba dem Salaam Seex Anta sargal ko mu sax ab diir fa moom ba mu fa jógee la wuti daarul man ya dar ko xam ne raw na ndaanaan booba njabootam gépp daarul man naan lañ féete woon ci yoon di leen jox ñuy naan wax nañ ne ñetti at la am ci kër ga fër kër ga lakk mu goraat ca wet ga weer ki fan rek la fa am dem tuxuwaat daarul man naan ngir dong yaa ko sanciwaat bis nag la woo Cheikh ibrahim Fall jox ko ndigal moog Ibra Saar ak Samba Diop ñu wuti lal talal ya ña ngi ko doon jëlee ndar booba teg ko ci ay gileem mu jëm ci siñ ba lal yooyu nag la noon ya gis dem boole ko daat ñi dafay waajal jihaat gis nañu ko mu jënd ay ngànnaay di waajal ab xeex mook aw nitam jug leen ca moom jëlul yeex looloo taxoon ñu yóbbu sëñ gànnaar ca biir sërif ya ca tubaaba doy waar ngir naa bu jaxasoog sërif ya danañ ko mëdd suul ko jël dongoom ya juróomi at soxna ko réewum gànnaar delsi ci réew mi mel ni jantum jolloor dem na ca yéen soxna fa ñoom juróomi at mayam yi yéem ñëpp ku nekk tekk bët ca yéen la cheikh bamatu xow dem njaaréem murid ya dar ko fu mu aw ñuko ko soxna fa njaaréem fukki at yu tek juróom bur yàlla jël aduna jébal ko mu mom malakani dunya wa ukhra bamba moko waxon du waxi Sàmba ak Demba malakani alqur'ana bamba neena yàlla mu mom lo alquran te wér na biyataàllaqa alladhina aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu cheikh Bàmba ne jinni yewon ci jamonom ñe ci julit ñom ñëpp ñëw jokk ci mom neenal na su mbindeef yi cib loxoom la ne zimaamu gee ca xaddimat loolu lay wane njaarim la bàmba yëkkatee diina taxaw sampuy kenoom turu borom bi jib ca kaw waa réew mi ñëpp fàq dem jébbalu ji mu génn leen fu ne mu tas fa diina ji sàkk na ay mbër ñamu sàkk sàkk yeneen ni mbër bàmba du cof day sàkk kajoor di ñëw saalum di ñëw banaar ya sax daanañ fi ñëw muy jël alal di leen ko jox waa makka it daanañ ko bind leetar ak di fa ñëw moo tax ku ñuul am tiitar buur ya di ñëw dag di ñëw di jokk seytaane mer diina di ree baykeeku buur yaa ko doon ruuxale ak ay noonam ñoom ñëpp mujj ñëw diraam ni jaamam tubaab ya sax léeg-léegi daan nañ ko dikkal ñëw boobu fa moom di lee koy sàkku ndimbal téeméeri junni ngurdu jox na leen ko bis matoon na bit seen réew mi ñeent yoon yu des foofa ca njaareem la defoon jumaa juréy te taaru lool waa mi ñu ngi koy yëm ba tey njaareem këram la wuyu jee boroomam ñu yóbbu Touba yàgg nay moomeelam sëñ Mbàkke Buuso moo ko jullee boobaa murit ya sargal ko mu ñibbi Touba Cheikh Moustapha Taba ko jëkk a wuutu gannaaw ba nag Cheikh Fallou moo ca bootu bañ fi jógee Cheikh Abdoulaye seen rakk moo fi ne woon jëfi lu kenn dul sikk ba fi jógee Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo fi ne woon tas na ci réew mi barke Cheikh Saalihu njabootu Cheikhu Bamba moo fi desoon mu mujj tooge jalba ba mu fi jógee Cheikh Baara Fàllu doon na ko sëñ Baara dem Cheikh Sidi Muxtaar wuutu ko Cheikh Sidi dem mu Muntaxa suñ mbég mi mooy ki fi toog baax lool di soppeeb réew mi yàlla na fi yàgg lool te wér lool Mbàkke suñu sag la ngir jëfu fi luñ koy sikkee amina amina bi jaahi Bamba kay ma gi maam Cerno sëriñ Masamba sëriñ Saalihu Géey Badar